yoonu murit danañ màggal guddik laylatul xadr tey ci alxames gi mu tàmbale woon ka ca daaru wahab 1952 laata mu koy indi ci dëkk bu sell bii di Touba soxna may munatu mbàkke di caat ci cheikh ahmadou bamba xaadimu rasool ku ñu mosa ràññeet la ci taxawal guddi gu màgg googu ngir alxuraanul karim sunu borom may nu ñu fekke waat nag ni sii déwén nee barke ba nga xam ne moo nekk ca soxna may nee na daal di ba ci sunu jëmm yi ne waajuram dafa dëkkoon fii ci kër gi ne fanaan na fi bu dul benn du ñaar ne nekkoon kenn ci Serigne Cheikh Gaynde ma nee na ñun ñii mu am lu mu jàppoon ci ñun ne amoon cër ci mboolem lislaam bépp waaye rawatina ëtt bii nag dëkk bii nee keroog bi mu fi ñëwee loolu la ko sëriñ mun taxa wax kër kilifa gu mu duggoon it muy kër sëriñ Isaaxa muy sëriñ Ahmadou Muxtaar nee na fu mën a doon rek kàddu yooyu rek lay dégg. màggal gi nag nekk ak yi ngir ñu fàttaliku ki nga xam ni moo nekkoon doom bu jigéen ci Cheikh Ahmadou Bamba soxna May kem ñi ko jege ni ñu ko daan woowee. saa boo ma see ñëw jox ko addiya yow danga rus ndax dana la jox loo xam ne lii moo ëpp lu fuuf la nga fa joxe woon ci xeeti tar la ci ay ñam. yabatta la yoo xam ne booy booy ñibbi boo demee da nga ko mën a jox sa waa kër ñu bëggee ko nga lii ci soxna si laa day day ngaaw a bool boo xam ne bii ñam la ci def yaa xeeti ñam lay doon yoo xam ne yu uh, am solo la nii la uh, boo jëfandikoo nag ne mu ne yóbbaaleel ci waa kër ga ndab li uh, ndab leeg lim ko ngaawoon nag mu ne jur soxlun nga di ko indi noonu noonu lay def waa kër gi nañ koy barkeeloo ndab la ak lañ ko ngaawoon noonu la meloon ci joxee ñam doon koo xam ne kii daal wax dëgg yàlla daal yoon wi daal Euh, roytu la ci woon. bii man Darou Wahab boobu maa koy taxaw diggante ay ay at at xam nga fa lañ ko jëkkandee ko wax taxawul naa ko fa ay yoon ginnaaw gi lañ ko doon di fii ah moom maa itam moom daal lan daan waxtaan daal mooy sa sëriñ daa mën ko mbàkk mu ne man daal bëgg mu lu may liggéeyal sëriñ Tuubaa rek liggéeyal sëriñ Tuubaa rek mooy sax bëgg mooy waaw moom soxna si liggéeyal sëriñ Tuubaa rek daal moom ah, man daal su ma sañoon ah, duñ ma wax sax may may may mun a ma daw may may mun a maanaam jaamu sëriñ bi may wax foofu actuel bi egg na foofu. atum ren bi nag wuuteeg loolu tuuti rek ak daaw màggal gi mu ngi delsi di mel ni mu meloon kem ni ñu koy firndeeree sëriñ Abdou Bali Mbacke bokk ci comité d'organisation kem at mu ne ay junniy kaamil dinañ ko wàccee ngir jagleel ko soxna si nga xamante ni si naka jekk dafa mos a ràññeeku ci nekk ab taalibe bu takku farlu lool ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu di ko woowee soxna mënatu Mbacke mu wuy ji boroomam ci atu 1999